jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen siyaar yéen ñuy fi suivre seen site internet Gaston Production mbokk yi nag déplacé wu nan tey ñu ñëw foo xamante bi ni ci Dakar sori na trop trop trop xam naa Baye Fall moom dina wax fan la parce que fii moom yaakaar naa ne du Ndakaaru Njaay mais nag dëkk bi dafa yaatu mbokk yi di leen siyaar bu baax di leen jox seen wàccuwaay yéen ñuy suivre ci site bu mag bi macha allah di leen jaajëfal bu baax di leen wax ne leen yokk leen abonné ñu jëm incha allah le 5 mars ci diggante Reug Reug ak Sa Thiès tey nag ñu jël si Abdou Seck tarkindaa bi fës yéene waxtaan ak moom ci làmb fas yéene waxtaan ak moom ci coow yi nga xamante bi ni am na fi combat yi passé yaakaar naa ne làmb yi jeex na amateur yi wala yenn supporters yi jam baaraamu tuuma tarkindaa yi yaakaar naa weddi nag du ragal seetal sa der la ñu jël si ko fas yéene waxtaan ak moom fas yéene waxtaan ak moom aussi tamit ci yalmin bi ba xam prochaine combat kañ lay doon ginnaaw le 6 novembre bi mu ci jógee am ndam ci kaw Papa ñuy encouragé Papa di ko félicité aussi tamit wax na ko dugg na ci làmb ba génn ci làmb wax dëgg yàlla deful luñ koy xeebe di félicité Siteu di ko wax na ko làmb mi ngi noonu làmb mi ngi ci kanamam dañuy nuy Abdou Seck bàyyi ko mu nuyoo mbokk internet bi bu ko defee ñu dugg ci waxtaan wi Baye Fall maa ngi baax di la bëgg. ñu ngi lay fay bu baax. Mm-hmm. wax na jërëjëfe borom Touba rek jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul di santaat Baye Sidi Mbacke alxuraan bu wér a wér mm-hmm. waaw di ko santaat bu wér mm-hmm. mu ñëw moytu rek yaa a xam. Mhm. waaw. mais sori nga nag de fii de moom gaynde waaw fii moom xaw na xëcc <laughs> mooy loolu. xaw na xëcc mais mooy loolu. Eh. bëgg jàmm rek. Ah, yaa ma gën a xam mooy loolu. Mhm. macha allah mais mais Seck yaakaar naa dañuy taxaw ci làmb bala maa ñëw sax seen adversaire yeeg seen potentiel adversaire dañuy taxaw ci làmb làmb dafee paase si diggante combat booy Niang ak Balla Gaye après coow li bëri lool. boo jëlee waa Géejawaay wala yenn ci supporters yi Balla Gaye numéro 2 yi jëm baaraamu tuuma Siteu ne dafa dugal loxoom ci combat bi booba léegi nag kenn mënu leen a gis yow booba léegi maa ngi lay woo mais mënuma la jot interview bi yaakaar naa ne waroon nañ ko def bu yàgg lan ngay leeral ak loo ci mën a wax. loolu moom xama nga. moom ku si nekk rek ak ni ngay waxee mais amaana benn côté am na côté boo xamante ne nii dëgg la. Mm-hmm. tey jii nii maanaam si am na fépp supporter mais maanaam présent yi di nga dem ba nga xamante ne ni maanaam xam nga da ngay xol sax day sot te amaana sax maanaam ki ngay solle sax maanaam tey jii nii dëgg la mun ngeen bañ a seq dara mun ngeen di bañ a déggante mun ngeen di bañ a def dara parce que dal na fi bu mu juumul dal na fi kan Eumeu Sène Modou Lô Eumeu Sène Balla Gaye gis nga bi Modou di ñëw si Balla Gaye mhm. bi Eumeu Sène di ñëw si ba di di ñëw si Modou Lô mhm. boobu noonu mooy loolu mhm. maanaam dafa demee xadar rek moo waral mu demee foofu mu demee fa noonu. Mm-hmm. waaw benn côté tamit dëgg comme am nañ ay supporteurs fu ne. ñi supporter Balla Gaye ñi di supporter lii dëgg la. Mm-hmm. moom am na waxin boo xamante ni dëgg la nag waru ko waxee sax. Mm-hmm. waaw mais amaana moom bi muy wax bi muy wax maanaam waxee na xol parce que boo xoolee ni si da waxee parce que maanaam combat bi dafa ñëw combat booy Niang Balla boo xoolee tey ji nii am na bu ñu xoolee sax si journaliste yi mën nañ ne ñi dañoo faral Balla Gaye wala ñu xool feneen ñu ne ñii ñëpp Balla Gaye lañ faral. te pourtant ñun xoolee wuñ foofu. mais moom foofu la doon waxee. mais du si cadre comme ay Balla Gaye nii. wala Boy Niang te bàyyiwul kenn si laam. ñëpp la ñuy bëreel. kon tey jii ni maanaam mooy loolu. waaw mais tamit loolu dañu ciy jégalu supporter bu Balla yi nga xamante ne nii dañuy supporter si te xam nga mm. loolu dara. Mm. mooy loolu làmb la rek. Mm. waaw. macha allah bu añaa daan daan na Balla Gaye Balla Gaye day méritéwul Balla ku ne xam na li mu def fii nii si làmb ah. Mm. kon mooy loolu. Mm. macha allah ci biir loolu tamit jëli na ndigal ba tey mu ne Siteu bu amoon combat kaar da daa taxaw biir géejawaay ay kaar sax di dem stade moom bokk na ci ñi ñi doon supporter Siteu mais instant yi moom mere na leen quoi. kooku moom tu ma ko tu ma ko sax tontu ay tontu yoo xamante ne nii mooy loolu parce que gis nga Aziz génn. Mm. wax si lu rafet. xam nga ne maanaam Balla day daan mm. xam nga mm. ñu koy daan mm. kon tey ji bu daanoo ah. buñ ne kenn moo ko waral ñoom loolu ñuy wax sax si Siteu naan ay Siteu daa jàppale booy Niang si lii wala la kon loolu loolu rek loolu rek maanaam loolu rek loolu loolu am na lu bari lu muy yokk si Siteu allah kooku day mel ni sax Balla Gaye bi ñoom bu ñu waxee loolu day mel ni sax Balla Gaye cuune la Siteu di raqu Balla Gaye mm-hmm. li Balla Gaye xam Siteu xamagul loolu noonu kon ñoom maanaam bu ñuy topp mbër nañuy topp mbër si ko si lu nice di wax wax bu rafet wala ñuy def def bu rafet. moom géejawaay kaar yi fay gaare du moom moo tax ñu fay gaare. bat suba suba suba bu ñu amoon combat mu mooy loolu. ay kaar lay gaare géejawaay. man géejawaay laa juddoo. sam papa titre foncier la am biir géejawaay. te cité rek laay nooyee. kon jeex na. mooy ay kaar day daw taxaw fii wala du taxaw fii nii moom ndigal dafa waxee loo xamante ne nii maanaam moom waru ko waxee quoi. macha allah moom buy wax nay seet ay waxam bu baax a baax a baax. Mm-hmm. macha mais dañuy taxaw ci combat boobu nan nga gisee combat boobu combat bu bari coow yaakaar naa ne arène nationale ba feesoon na ci diggante Sokh ak Franc mu ñëwaat 6 novembre Siteu Papa Sow mu fees ci ñaar yin ko tëgg yëpp encore contre Balla gay mu feesaat ba gars yi taxaw ci kaw nan nga gisee làmb joojoo coow li. waaw mooy mooy làmb làmb xamal làmb coow moo ko yor. Mm-hmm. làmb bu amul coow tey jii nii maanaam ñu bëri doo leen fa lambu Zarko Ada Fass bi passé nii rek bu dul woon coow du demee noonu. Mm-hmm. Balla Gaye tamit moom ak Boy Niang. Mm-hmm. bu dul woon coow du demee noonu parce que ay dër lañ boole. Mm-hmm. lamb moom fu ñu boolee dër far su stade bi ñëpp dinañ gis ñëpp quoi. macha allah am na solo léegi dañuy taxaw ci beneen combat bi nga xam ne moom mujjee passé nag muy le 15 janvier ci diggante Zarko ak Ada Fass ba tey avant combat bi du ma ne super supporter Ada yi ak Ada Fass yi boppam. mi ngi leen di classe ne leen yéen ay daaw làqu ngeen da ngeen di sot bu mettee da ngeen ñëw ci ñaay bi ñu dalal leen yaakaar naa ne komba bi tamit ñoom it jam la na leen baaraamu tuuma ne ba tey tegguwoo leen seen tànk da ngeen cee dugalaat loxo. waaw mais loolu moom depuis combat moom ak Coly Faye moom depuis foofu la commencé foofu la ko waxee. Ada Fass man ñaari combat. laa dugalul loxo si si ay combat am. ñaari combat. waaw muy ban ak ban. mooy Coly Faye ak Zarko. nga ci dugalul loxo. sama loxo moom man ma jàppale ko moom. ok. bu delloo si ginnaaw moom xam na lu may wax bu baax a baax a baax. ok instant bii nag bu ko neexee mun na toog mu wedde ko mais ay magam duñ ko wedde. parce que ay magam ay longo lañ. mais man déggoo xaju jàmm gën xaj bi. Ah. xaj bi sax buy bëre xaj bi laay faral. <laughs> ak ku mën di doon si dëkk bi. ak lu ñu nekk ay gaañ nekk ay gaañ. Mm-hmm. parce que man jàmm gën mooy sama deret. waaw loolu dama koy dund. Mm-hmm. waaw jël na qualifié. Ah. bi mu jëlee qualifié ñu dem waajali qualifié. Mm-hmm. ñëw yàlla may ko ndam. Mm-hmm. mu demaat si Zarko jël Zarko. Zarko sama gaañ la sama nit la. mooy loolu am naa droit faral ku ma neex. ma dem faralaat ci Zarko. waaw Zarko fayakul ma li ma ñaaxoon si qualifié yëpp Zarko indilaat na ma ko. macha mais mais dugal ngeen ci loxo wala xam nga ñëwoon jàppale jàppale sa mbokku taalibe yomb na mais dugal ci loxo. nga dugal loxo dugal loxo yow tey nii am na loo xamante ne nii maanaam mooy loolu man moom man man nga xam man dama teg sama xaalis si Zarko. ah da nga kaaw. boo demee nga laaj leen ñoom. qualifié dama kaw ñu gañe waaw waaw boobu leeroon na moom. dama kawaat si ñoom. te kaw bi kaw ma par hasard maa rek doo bàyyi <laughs> kaw ma ko par hasard maa nii rek balaa teg sama xaalis damay woote. ah ok da nga informé wu ba am lu la leer. déggoo li ma la wax damay dem si ñi ma xam man. ñi ma yaakaar man damay dem si ñoom. ok waaw ñu xoolal ma mu leer nañ ma dugal sama xaalis. waaw. léegi gañ na la fii nga dabu si ko fii. foofu dama dabu ba wisu. si contre bi. ah nga triple quoi. ñu taxaw ci combat bi combat bi coow li mu amoon mu mel ni tey benn combat boobu rek moo fi combat bu rëy lan la ci Zarko la ci aada Fass la ci supporters yi la parce que bu ma juumu tamit. ci li ma dégg waa jàmm gën wàlli si nan Grand Yoff a cent pour cent waxuma la a cinquante pour cent de pour jàppale ki xam mooy Zarko. non mooy loolu ñoom ñaar si ñaari mbër yëpp la. yow xam nga ni Zarko ku ko xam kook coow. dof la dof ko ni moom instant bi tamit mbëru coow la. xam nga ñaari mbëru coow nee naa chaque jour bu ñu dajee mooy loolu. Mhm. waaw man avant muy dajeeg Zarko bi mu bi ñu jëlee bi mu jëlee Zarko rek dama faral Zarko. ok bi combat bi taxawee bi bi taxawee rek ma damaa faral Zarko. Mhm. kooku moom bañu ma loolu noonu. mais li reste si jaamu gan. Mhm. ay supporters lañ. Mhm. te dañoo am seen mbër. sëñ déggul mu laa ni. moom bëreegul ak ah, Zarko. waaw ah. dégg nga ko image yooyu noonu gis nga ko. nee na Zarko moo ko yónni. moom dafa xeeb Zarko si papaam la jëm. ok image yooyu xam nga image yooyu mi ngi daw. image yooyu noonu mais supporters Siteu yi ñoom gis nañ ko. ñoom dem nañ jàppale ji Zarko dem supporté ji ko. Mm. am nañ si droit. Mm-hmm. mais Siteu moom ba léegi sax mooy loolu combat bi bi combat bi taxaw sax est-ce fekk na ko fi. Mm-hmm. waaw fekk na ko fi waaw dafa bëre ba pare dem. Mm-hmm. mu bëree ba kuy Amérique yow xam nga li si Amérique. Amérique mënoo fa nekk di yónnee naan ay da ngay lay demal fii wala demal fii. te Siteu am na loo xam ne bu ko naree def si beneen mbër. non dafa yor ñëw lu ne gàññe. biir dëkkam. waaw kon tey jii nii maanaam bu demee ba war ko def si beneen mbër noonu kon mu def ko si ay mbërëm mbëru koneem yor na kilo libar yu boppam mm-hmm. waaw amul loo xamante ne nii balaa ngay dàq muy dem si àll ba da ngay dàq mu jëm si biir kër gi mm-hmm. ba pare doo ko mm-hmm. dàq mu jëm feneen si tam loo xam ne talu ko macha allah am na solo léegi yaakaar naa ne tëj nañ foofu ci combat le premier janvier bi ak le quinze janvier le 6 novembre nag da ngeen a ñëw wane seen bopp muy combat boo xamante bi nii sénégalais yi dañ ko doon xaar ñu ne Papa moo leen mën Papa Sow moo leen dàq bëre doole rek ngeen ko ëpp ci li nga xam ne moom la expert yi wax ñu ñëw ñu wuure yàlla dogal si te am ndam ci kaw Papa Sow booba léegi coowal làmb topp ko mais ba tey combat yaa ngi taxaw te dégguñu kombaam ñan ñooy seen adversaire yaakaar naa gis nañ fi sorti la de Guiers gis nañ fi sorti guy Gui gis nañ fi sorti ñeneen ñeneen mais ba tey dara sottiwul. waaw saa bi nii ba léegi ñu ngi wax nag. Mhm. waaw xam naa ne mooy loolu na yu bëre yoo combat yoo xamante ne li ma li waaw am naa si yaakaar bu baax a baax a baax mooy loolu. Mm-hmm. waaw. seen diggante ak eh, lu ngeen si wax. Lac de ñun déggoo man nee naa la man man kuti ba mboobu barki sëñ Baama parce que man am na loo xamante ne ni moom laa wut si si làmb. Mm-hmm. waaw man ñun zone kon moo ñor. Mm-hmm. mu ñu leen dimbalee. ñu amul liggéey am liggéey. ñu nekkoon si banditisme ñu géele leen si banditisme. xam nga lu ma la xam nga nit boo koy jëlee si dara da koy jàppaloo dara. ñun loolu moo ñu ñor. te soixante quinze millions yu ñëw wala cent millions yu ñëw. lu mu dee dee dee dee dinañ si recruter benn cinq personnes wala six personnes bu yàggee dina baax. macha allah loolu moo ñu ñor si làmb mais tooguma sax di taamu ay adversaire cat ba cat si cat ba si suuf. ku si promoteur bi daal ñun xam nañ li ñuy jar. li ñuy jar moom promoteur boo xamante ne ni dem nga sax gis sa beneen mbër waaye waaye sax. ñëw nangoo fay loolu. ñun boo ñu fayee dañuy bëre. macha allah waaw macha allah am na solo yenn amateurs yi nag nee nañ la dëgër moom. coow la rek mais mais la daggéere leen ëpp doole la daggéere leen man la daggéere leen dàq bëre est-ce que combat boobu tamit ñu ne am ngeen ci sens. waaw dëggoo nga tey jii ni moom si moom ku mu jël ku ne rek yaa ko doole yaa ko mën parce que ñun la ñuy taxawee. mais ñun tamit xam nga nga yaa ko ëpp doole yaa ko mën kooku day yokk jom si doomu aadama ñun yaa ko ëpp doole yaa ko mën boobu noonu chaque jour bu ñu sañoon moom la ñuy dégg. Mhm. mais tamit xam nga bu ñu demee dinañ ñaan borom bi suturaal ñu li ñu war lépp dinañ ko def. waaw bu ñu demee ñaan yàlla borom bi suturaal ñu may ñu ndam mais du la dëgër yaa ko mën moo ko mën moo ko mën boobu moo gën a tax sax mu bëgg la dëgër. ok moo ko mën bi moo tax mu gën a bëgg wane que parce que li tax foofu noonu ñoom ñëpp ponkal yëpp dañuy daw la dëgër instant bi. waaw mbër ñëwee parce que tey jii nii du ma la nëbbu fu ñu demee ba ne Siteu ak la dëgër. Mm-hmm. foofu noonu tey jii nii amul Siteu ak Balla Gaye amul Siteu ak Modou Lo amul Siteu ak Ama amul Siteu ak keneen koo xam ne war nañ ko daw. Mm-hmm. dëgg la wala dëgg. Mm. ku dem ba nga xamante ne nee nga Siteu Lac de mm. te Lac de Guiers boobu noonu moom la ponkal yi nekk ci kaw yëpp instant bi di daw. Ah. léegi ñu ne Siteu ak Lac de mm. kon Siteu bu amee sañ-sañu jël Lac de Guiers. kon waxuma la ay Lac de kon kon xam nga ne kooku bàyyiwu fi kenn. kon léegi nag mooy wane ne làmb ji ñun kum ñu booleel rek ñu bëre. waaw. macha allah ci biir loolu tamit Gris Bordeaux def na sorti même noonu même moom combat am ak Siteu sax. pare na pour bëre parce que instant yi moom ak Ama nee na comme Ama dafa dugal médical 21 jours moom tamit du taxaw di xaar ba ci waa fas seen point de presse bi ñu defoon wax nañ ba boole waale ci seen i adversaire Siteu. Mhm. daal Gris Bordeaux Balla Gaye Modou Lô Lac ñëpp ku si nekk. mais Modou Lô pour man du ngeen bëre de sec. dëggoo man yow ban bëre loolu laay bañ di dégg ay doo leen bëre diw doo leen bëre lee. gis nga Modou Lo moom Siteu eh. ay lonko lañ eh. mais gis nga lonko bi dafa am fu mu yem Modou mosul joxel Siteu këram dépense Siteu mosul joxel Modou Lo dépense Siteu ak Modou lan moo fan lañ xamante bu dul woon làmb est-ce que dinañ xamante bu woon làmb Siteu ak Modou Lo duñ xamante gars yi nañ delloo si waat seeni xel mhm. làmb mooy may Siteu mooy may mooloo mhm. kon tey jii buñ fi nekk sax naan Siteu du bëreeg Modou Lo wala Modou du bëreeg Siteu mais li dox ci diggante bi nag Kader. non déggoo Kader Kader loolu ay ay mbokk ay mag ak rak lañ moom ak mm-hmm. dëgg la saa déglu ma la nii takk na raku Modou Lo. Mm-hmm. ak ñoom ñaar bu tey ji bu combat bi taxawoon ñooy bokk télé bu ñu koy seetaane. Ah, kii faral magam kii faral rakam wala que le meilleur gagne. parce que sëñ Ba man loolu laa gisee man déggoo man làmb tey jii nii maanaam déggoo man ku dul doomu jàmm gën man bokk man. Mm. xam nga te tamit li may wax man sama wax la. Mm. ku dul doomu jàmmu gën laa la wax ni pour man Siteu du bàyyiwu la fi. kon da laa mujj yéen a fi ëpp adversaire. moo waral tamit ñun ñoo fi war a ëpp xaalis. Ah, waaw parce que moom li muy géem la Siteu li muy géem la kooku dafa war a am xaalis. Mhm. moo tax du fi bàyyi benn adversaire. macha allah képp ku ñëw rek pare pour bëre Siteu ñun pare nañ pour bëre yow. Mhm. waaw. macha allah am na solo yaakaar naa ne bala maa ñëw. comme sa diggante ak Siteu ak affaire yooyu parce que ñëw naa si kër gi gis naa fi photo Fodé photo ki nga xamante ni mooy Baye Sidi Mbacke alxuraan Ada Fass sa frère la boo amoon loo koy ñaaxee lan lay doon mu mel ni fan yi coow bari na ci moom trop ginnaaw defet bi nga xam ne am na ko en plus mu takk soxna coow li bari na en tant que frère boo xamante bi nii xamante ngeen ci làmb mu xam la nga xam ko nga yàgg a jëflanteeg ñi nga xamante ñoo nekk ci ginnaawam tey boo amoon loo koy ñaaxee lan lay doon. waaw mooy wax ne ko rek mooy loolu kuy day am gétt. waaw te mbele mbele bu bi nii coow la. Mhm. gis nit lu nekkul si yow bu ko forcer. Mhm. doomu aadama lépp loo xamante ne nekkul si yow bul forcer loolu. Mhm. dundal li nga xamante ne ni moo nekk si yow. waaw moom na dund li nekk si moom. bañ a topp ay bëgg-bëggu nit bu ko toppee rek mooy loolu. lamb du du benn fan du ñaari fan de. coowul lamb. coowul lamb ki ko attan ñi ko attan bariwul nga bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax. làmb dafa ànd ak coow. te coowam dafa garaw fu nekk la fu fu nekk la fu nekk la lu ne di génnee. waaw te kooku yow maanaam te jii boo amul ngëm-ngëm dëgg dëgg dëgg rek mun nga bàyyeeku ko. Mm-hmm. kon moom na jéem ut gétt gu baax. waaw mu taxaw foofu noonu. parce que xale la te li muy li muy def mun na ko. Mm-hmm. macha allah kon moom mooy loolu na jéem a xoolaat. waaw ñu xoolaat ginnaawam daal bu baax a baax. Mm-hmm. macha allah am na solo fi may jeexale mooy foto bii ma jàkkaar lool yaakaar naa ne muxtaare na lool man moom bëgg na maa am kër ba def fa siñ Saaliw ak ñi ma ko yàlla booleel ñëpp macha allah xam naa ne Xalil après da koy jëlal photo bi lii rafet bi mooy loolu suñu waaw mooy loolu photo bi rafet na. Mm-hmm. ay taalibe Sëñ si rek a fa nekk. Mm-hmm. mooy loolu. ñaanal Baay Sidi Mbacke yàgg fi rek te wér. li lépp moom la. waaw budul woon moom day ñaaw barke sëñ Tuuba waaw parce que waaw luñ mën day am daal suñu laaj dañ ko koy sante bu baax a baax a baax a baax a baax waaw billaahi macha allah ñu sante suñu yaay yi sant suñu papa yi mm-hmm. moom dimbali nañu si bépp côté daal waaw kon moom luñ mën di fuñ mën di nekk moom la ñuy wane daal barke sëñ Tuuba mm-hmm. ana yàl moo ngi si yoon bi daanaka rek xam naa ne mooy weer bi moom xam naa ne si weer bii rek incha allahu rabbi. gaa namm nañ ko dugg seegul ci dëkk bi de. waaw day dugg si <laughs> day dugg si léegi léegi léegi instant bi nii mooy loolu. Mm-hmm. jaayee ko namm. macha allah yal mi nii ñoo ko namm yal mi nii ndaw yi. mais est-ce que di ngeen amati tàkkusaan gu mel ne seen tàkkusaan ga ak Zarko 2016 xaw ma 2015. non ah du yomb de. lamb jooju jaxoon na de. du yomb daal waaw lamb boobu moom neexoon na. Oh, lamb boobu boo koy fàttaliku leneen la leneen. waaw lamb boobu moom. drapeau laa di faa. macha allah waaw. <laughs> ndam neexoon na xam nga. Mm. lépp waaw lépp doonoon na jaamu daal ba sëñ Tuuba. macha allah am na solo ma bàyyi la nga tàggoo. waaw sant ñëpp rek gërëm ñëpp. waaw di sant suma yaay bu baax a lépp ba sëñ Tuuba. Mm. di sant terkindaa yëpp. Mm. gërëm terkindaa yëpp waaw. di wax ne gars yi nañ lekk avance bi. jot na mooy loolu sa warul bë dafa war a bëriwaat saison bi. Mm. bilaahi. macha allah. Mm-hmm. jaajëf mbokk yi mi ngi noonu di ko jaajëfalaat bu baax a baax ci disponibilité bi xam naa ne sonal naa ko lool parce que boobu ba léegi maa ngi koy woo mënuma ko jot interview bi bëgg nañ ko def depuis le 5 janvier mais nag tey la ko yàlla dogal macha allah di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne leen samedi incha allah le 21 janvier. caatu Daouda Fall mooy bëri ak ki mooy gin bu yoof loolu prince moo ko tëgg ñu ko ciy jaajëfal bu baax a baax combat spécial bi dox ci diggante Malam Ñaani ak Mori Kini yaakaar naa ne huitième combat bi day si diggante Ama bu Malika ak Ardo loolu Jax production moo ko tëgg muy combat bu neex a neex a neex a neex yaakaar naa ne am na ay combat yu bëree bëri dimanche yi nga ñëwee saat dimanche maa ngi andi Liss incha allahu rabi. mais am ngeen combat nag de Ardo. di ko ba Ardo champion la. Mm-hmm. waaw man Liss Ndiago bi nga xamante ne ni moo ko jël sax. Mm-hmm. dama ko gëmloo ni ko Ardo champion la. waaw parce que champion rek moo war a daan champion. Mm-hmm. waaw Liss dafa am luñ koy xaaree. macha du woon adversaire u sax Ada Fass. sax euh, Ardo. Liss la Ada Fass lañ waroon wax. mais làmb moo tërëri. di woo jàmm gën si kaa mbaaw ñëpp. ñun ñëpp waa fépp fu doomu jàmm gën nekk. combat la 22 bi nii suñ combat la. allah waaw. Ah. macha allah ñëpp nee nañ moo mën Ardo moo mën. Ah, mais yal na yàlla ànd ak ñun. waaw ah, parce que ñun xam nañ ki ñu yor xam nañ moom mooy kan. waaw incha allahu rabi le 22 bu soobee yàlla yàlla dinañu suturaal mooy ñun dam si kaw Ardo. incha allah. macha allah mbokk yi mi ngi noonu di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston Production xalil jërëjëf.